ñëw euh, mu di ci njiit yi ba tey ki nga xam te moo jiite kër gi di Dakar dem dikk mm-hmm. moom euh, ci fin de semaine bi gis nañ ko mu def conférence de presse euh, ñi am mbir yu bëri yoo xam te ne daal dina ko def mm-hmm. comme ay révélation ci biir kër googu nam ko fekkee ak li nga xam di mbirum koppar yi fa muy dugg mu dem bay tudd ne gis fekk na fa benn billet d'avion boo xam ne lu toll si trente cinq millions ci suñu koppar la waaye itam ci yeneen i mbir yi yow bëri yoo xam ne daanaka buñ ko seetee ba seet méngoowul ak la nga xam xam moom moo war a am mu di rek ci gestion bi nga xam te ne moom moo fi amoon ci ci régime bi dee weesu. oui dama jàpp ne yooyu yëpp euh, benn xeetu prolongement wu état des lieux la. Mhm. et comme ni ma ko waxee euh, la dernière fois il faut loolu continuer mooy foog gars yi génn. expliquer ñu parce que c'est important les Sénégalais doivent savoir mhm. ni DG bu Dakar dem dikk ñëw ñëwee expliquer noonu la DG yu si ku si nekk war a mën a génn expliquer état bi nga xam ne nii ci la yenn yenn sociétés yu nekk ci biir réew mi nekk. Mhm. et ces révélations aussi doon doon lu grave quand on nous dit que euh, Dakar Dem Dikk est confronté à une euh, dette de quatre virgule neuf milliards ci dépense yoo xamante ne mais ministre le ministre El Malick Ndiaye génnam bu bu mujj bi muy mhm. expliquer <laughs> ci situation bi. Mhm. Euh, vingt huit milliards. ci ay moo si njëkk a ñëw. ci ay pousse pousse. amee ah, si loolu boo ko déggee lii du la bett mooy tey jii ay pousse-pousse yoo xam ne secret defence lañ koy lañ koy cacheté ci jëndum pousse-pousse loo xam ne biñ ko biñ ko évaluer dañu ne ah lii kat huit milliards dina baax pour que ñu mën a jënd euh, yenn outils yoo xam ne dañ ko soxla ci biir aéroport bi mais loo xam ne huit milliards lañ jël soumettre ko le DG ne leen non non huit milliards baaxul dañ koy yóbbu xaw ma vingt vingt vingt vingt trois xaw ma vingt huit milliards la. donc dans le cadre de la reddition des comptes ces gens-là ñoo ñu doon gérer d'ailleurs nga ñëw indi ay tuuma tuuma yi maanaam sànq ñu wax le cas Adama Gaye bala ngaa mën a rëy làmmiñ mooy da génn Sénégal kan moo tontu El Malick Ndiaye Doudou Ka tiir daw na bu yàgg moom c'est-à-dire faa nga daw génn réew pour mën a apporter des réponses <coughs> yow le fait de fuir kay ça montre que yow xam nga li nga def. Mm. léegi da ngay daw ba nag ba ba génn réew mi après toog fa nga toog di bind di yónnee nit ñi naa leen tontu leen ma wax leen man maa tontu maa wax lii cette presse là di ko reproduire naan Doudou Ka weddi na neena na El Malick Ndiaye li mu wax du dëgg mais sooy weddi kay yow bu ñuy jiñ sàcc nga ne tir daw ba pare dem ne man sàcc ba looy daw donc non mais ñii dañu doon foowee dëkk bi il faut que euh, cette justice là rawatina le parquet financier mais. def liggéey bu am solo par rapport ak mbir yooyu noonu parce que ces surfacturations yooyu ñu doon def ces recrutements yu teguwul ci yoon yi ñu doon def que ce soit à l'AIBD que ce soit euh, Dem Dikk euh, mm-hmm. mais yooyu dafa nekk ay mbir yu doy waar yoo xam ne mu ngi doon xew ci biir dëkk bi koppar gu bëri ñu jël alal lu réew mi di ko foowee ba pare bëgg a dellu si ëpp nit ñi làmmiñ maanaam nit ñi dañ maanaam dañ lay sàcc sa alal ba pare ñëw bëgg taxaw sa kanam ëpp la làmmiñ mais kon ñun nañu justice dimbali parce que mënuñu mënuñu bàyyi ces la là et puis c'est ces mêmes gens qui viennent nous dire woy dëkk bi dafa dëgër depuis ñi ñu indi ba léegi amuñu expérience ñoom même bu ñu amoon amul expérience yow li tax ñoom ñu nekk ci ay guute yow yaa sàcc alalu réew ma ñu war laa topp yow yaay revenir pour nous dire que dëkk bi dafa dëgër nu muy def ba du dëgër da nga sàcc alalu réew mi ñooñu ñooy nekk ci plateau di ñu wax ne non ñii amuñu d'ailleurs seetlu nga depuis quelque temps ni ni espace médiatique bi pollué woon bi réduction des comptes bi commencé ba léegi gis nga coono wàññeeku na bu baax a baax. te on attend toujours ay explications venant de nos ex ministre des finances qui ont été cités par le premier ministre. Mhm. dans le cadre de euh, nu mu tuddati. ay euh, état des lieux si mhm, seen gestion. que ay bor yoo xam ne am na fi sur endettement bu bu doy li ñu annoncé ci ci ci ci ay déficit nga xam ne weesu na ko des choses yu doy yoo xam ne xew na. plus de euh, lu toll ci deux mille cinq cent milliards loo xam ne dafa mhm. euh, dañ ko dañ ko voté ci ci secret secret défense six cent cinq milliards yu disparaître une dette publique estimée à seize mille milliards mais des chiffres qui ont été maquillés nga cité Amadou Ba l'actuel tête de liste de jàmm ak njëriñ. Euh, <laughs> yaa ngi tooñ de jàmm njëriñ la wax. waaw lu si des si. l'actuel l'actu nga nu mu tudd. Cheikh Bara Ndiaye ak la yóbbu non damaa juum l'actuel tête de liste. Mhm. de Takku Wallu mystère leen. ils veulent pas donner d'explication mais dañoo bëgg ñu jox majorité à l'Assemblée nationale yéen lii lu lu mal alalu réew ak maquiller ay chiffres ak fenn askanu Sénégal lañ leen jiiñ ne leen yéen donner des explications pas au gouvernement mais au peuple sénégalais mais ne serait que par respect yow su ma la ne woon yow yaa yow suñ toogoon fii ma ne la yow démb yaa saaga Daouda di nga ko ne non Daouda saa yi waxul dëgg saaga ma la de. Mhm. mais ne serait-ce pour leeral waxuma la ak nag alal réew mi sàcc par respect à au peuple sénégalais parce que waxu la jox explication man de joxal explication peuple sénégalais bi waaw mais la moo tax gars yi ñoom bëgguñ ñuy jox explication wala ñoom dañoo jàpp ne ils n'ont pas de compte en nous rendre et pendant ce temps ñu dafa mel ni ñëwatul de Daouda. ah ñëwatul de campagne. campagne Afrique est-ce est-ce que du yem Maroc ah, Macky Sall ah. Macky Sall Sall a maa ngi gis léegi <laughs> benn appel vidéo moom muy gërëm waa euh, PUR ba tudd Serigne Moustapha Sy yàlla man <laughs> loolu mais il faut qu'on soit sérieux quoi ah, man man je man je pas imaginer je pas imaginer ñu lay tudd ne yaa luubal alalu réew mi mhm. sax laay wax yow mais bakkan yi rot ci réew mi sa responsabilité na ci ba keroog soxna si di la laaj naan la pourquoi nga nga nga rey suñuy ndaw ba sa soxna di ko saaka ak yooyu ba ba ci xew-xew ci ñu teg ko ñu teg ko loxo. Mm-hmm. li nga gis nga kooku noonu benn citoyen sénégalais bu am occasion wax ak Macky Sall pendant ce Aïcha na la tudd Aïcha Camara Camara il y a de Aïcha Camara yu nekk au Sénégal yoo xam ne bu bu ñu amoon occasion jàkkaarloo yow keroog gis naa ko xam ne na ma kooku man su ma jàkkaarloo dama koy dóor mbëkk kon li la soxna soos wax moo gën a sedd ci li nga mën a dégg Sénégal mais président Macky Sall xanaa bu ko nattee foofu dina ne man sama voyage bi ak sama dem campagne bi naa ko fomm mbaa ma def ko campagne en ligne comme euh, Adama ga nee na nañ ko defal <laughs> nañ ko auditionné par Zoom Macky Sall moom war naa mën a def campagne bi par Zoom nga defaame nit <laughs> mu ñu porté la plainte nga daw génn réew mi ne léegi ne ko auditionné par Zoom quoi mais moom moom doo ko jàpp. Macky Sall peut-être campagne bi mën na ko defee par euh, Zoom wala appel vidéo euh, WhatsApp mais franchement li askan wi soxla. et étape bi jiitu pour loolu am mooy pour qu'il une reddition des comptes ñëpp mën ko continuer en tout cas ci ni mu commencé nii ces dirigeants la dinañ soxla. téye cette assemblée nationale là. Mhm. suñ ko téyewul itam mu am déedéet parce que c'est ça le problème quoi on n'a pas envie de dire euh, pouvoir dafa war am une majorité pour def lu ko neex non mais il nous fallait avoir une opposition responsable. une opposition boo xam ne li leen tax a opposé wu du jalousie du xeex nit mais li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggu sénégalais yi. Mm. malheureusement on a une opposition boo xam ne ñoom seen bëgg-bëgg seen bëgg-bëggu bopp la. Mm-hmm. kii dafa bañ benn waaye bu tudd Ousmane Sonko kii moom li ko naqari mooy dafa politique a politique ba sonn ay xale yu ndaw ñëw jor jot réew mi. Mm-hmm. kii moom dafa mun a accepter le fait que Bassirou Diomaye fay bi doon topp ci ginnaaw Ousmane Sonko jiite réew mi y xam ne ils des problèmes crypto personnels. Mm-hmm. ces gens là parce que dañoo am lu leen naqari pas parce que réew mi mais parce que ñoom seen bopp ñoom quoi man Bougane Gueye euh, damaa yàgg nekk si dëkk bi yàgg euh, yor ay entreprise dama dama yor euh, parce que xoolal seen discours sax loolu la mooy man dama daan fay ay nit man damay recruter lu toll ci tant de personnes man bi may yor milliards yoruñu milliards man dama daan am chiffre d'affaires bu 1000 milliards Bassirou Diomaye Faye boo xam ne xoola dafa dem def euh, concours jaar ENA def parcours am xëy su ma ñu tëj ko prison mu génn nekk président yow nga ne dee man loo tax ma def parcours bi waa ji nii génn di nekk président te ma nekk ma président mais clamel yàlla des gens qui parce que juste dañoo am jalousie wala ñoom mënuñu concevoir le fait que benn Ousmane Sonko nga xam ne barki Dembo Ndiaye bi ngay sos sa parti ma nga impôt domaine di liggéey ñu rajee ko mu génn def parcours bi jaar 2017 plus fort reste cent. 2024 waxuma la moom mais mu ñëw teg rakam mu gagné élection présidentielle yi ils ont ce problème là cette opposition boobu leen jàkkaar loolu et c'est ces gens là ñoom ñoo bëgg taxaw nañu jox leen ñu une majorité wala jox leen ñu des député à l'Assemblée nationale pour que ñu bloquer ce gouvernement bu mu bouger mais ñu bloquer gouvernement arrangé wuñu et à chaque fois c'est pas pertinent et c'est pas intelligent le fait que le peuple sénégalais mën a choisir au premier tour Bassirou Diomaye ne ko yow lañ bëgg nga doxal ba pare dem wutal ko maanaam un blocus tegal ko ko si kanamam ne ko doo avancé. man je te pour que nga doxal mais bul doxal loolu est-ce pas logique. donc dama gëm ne le peuple sénégalais comme je le dis à chaque fois. Mhm. prendra ses responsabilités pour que élection législative yi di ñëw. ñu xam lan la ñu bëgg. d'accord vite fait euh, Daouda Djigal vite fait rek ci révélation yi nga xam te ne directeur général bu Dakar Dem Dikk def na ko ci sortie bi nga xam te moom la def keroog. ma déggee li euh, DG wu Dakar Dem Dikk wax mhm. euh,